كما ينبهي وجلال وجهك وعزم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين شكرا إمام جالو Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of all creation, the source of all that exists throughout the whole wide world. It is in you that all human beings throughout the whole world live, move, and have a being. You are our sustainer. You are our protector. And you are our security. We continue to submit ourselves under your direction, your protection, your providence, and your defense. We continue to ask that you guide the sitting of the TRRC. And we submit all the witnesses that will come before this commission. Grant them the boldness to speak the truth and also continue to grant the Commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And we continue to beg that the Holy Spirit's power will grant the population and those in the diaspora the patience to allow the due process to take its course. And you being the just judge of all, will render each their due. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, um, Bishop Padiko. Council, I believe we're continuing with our witness from yesterday. If so, please proceed. Uh, good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. Uh, yes, you're right. We're proceeding with our witness from yesterday, Mr. Harisambo. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Uh, welcome back to the commission, Mr. Sambu. Mr. Sambu, you're la dalalaat ci commission Thank you. Uh, may I remind you that you are still under oath? Maa la ne wat, binga nga waatoon démb yaa ngi ci I remember. Fatel naa. And uh, I may also remind you that it's a criminal offense to lie under oath fàttali tamit ne bu fekkee ne waat nga ba pare nga wax lu dul It is also an offense to provide false information to the TRRC. Um, yesterday we covered some topics. Uh, in particular, your biographical information uh, I mean, some of the events that happened while you are uh, deputy DG of the NIA, de facto deputy DG of the NIA, in particular the attack on Farafenyo barracks, uh, which led to the arrest of Balo Kante and co, who were dealt with at the NIA. waxtaanee nañ fi yow sa mbir waxtaanee tamit jamono ji nga xamee ne yaa toppoon ci njiit li nga xam ne moo jiite NIA akit xew-xew ba eh, Farafeñe te Mballo Kanté ak ñi mu àndal ñu jàppoon leen ci. And uh, before we closed the hearings yesterday, we we talked about the panel that was established in 2006 uh, to investigate uh, the aborted coup d'état uh, of 2000, March 2006 uh, Baye Ndour Thiam. démb it balaa ñu doon wàcc waxtaanee nañ tamit lu aju ci coup d'état bu yàqu boobu nga xam mu ngi xewoon atum 2006 very March te jiite woon ko di ku ñoo wax Ndour Thiam. Uh, before we left we talked about if this there's a working method of the panels which comprised of four distinct elements. Uh, that is the, the torturers, the videographers, that is the, those who take the videos, the statement takers, and the investigators. Uh, waxtaanee ñeen tamit ñeneenti fànn yi nga xam ne moo ëmba uh, kilifa yooyu nga xam ne ñoo ci panel bi li nga xam ne noonu la ñoo doxalee seen liggéey am na ci ñoo xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne di def wàlli mbugal gi ak mitital ci kaw ñañ jàpp ci tamit di vidéo la nga fa xew ak ñi nga yi joxe binda ak nga gëstu bi. That is what we discussed yesterday. lañ correct waaw. Ah, now let's go back to this issue of the working methods of the panel. We want to understand what was the arrangement uh, the working arrangement of the panel. But first, let's start with, the, with your role uh, as the host of this panel. What was to be your role in that exercise? Legi nag ñu commencé suñu waxtaan lu aju ci ni nga xam ne noonu la panel boobu den doxalee seen wàlli liggéey waaye nag ñu njëkkee ko ci yow mii ci sa li nga xam ne moo fay woon sa taxawaay ndaxte NIA ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dalaloon eh, panel boobu noonu seen béréb ba lañ ko doon defee. What was your role as Director General of the NIA? What was your role in this investigative panel? lan sa comme directeur général bu NIA jamono lan sa ci panel nga dañ leen pour ñu def gëstu uh, uh, perhaps maybe I should give you a bit of background on the basis of what was discussed yesterday. Eh, waxal la rek ci li nga li ñu You told us that the panel was established on the

ñu ne it président bi ak général Tamba ñoom ñooy ki nga xam ne ñoo doon tànn ñan ñoo war a bokk ci panel bi. yes waaw. you told us that the NIA was represented in the panel by Momodo Haidara, who was chosen by General Tamba and the President. wax nga ñu tamit ne NIA ki leen teewaloon ci panel boobu mooy nga xam ne General Tamba moo ko tànn ak président bi. yes waaw you told us that you had no role in selecting Momodo Haidara to be the NIA representative in the panel. Wahanga nyuta ñu tamit ne yow de amuloo benn loxo ci tànn Momodo Haidara pour mu NIA ci panel boobu. yes Wow. that is what we discussed regarding how the panel came about. yooyu lañ waxtaanee woon lu aju ci naka lañ sosoo panel bi. Considering that this investigation was being conducted in the, within the NIA premises, and you are Director General, and the President, and the NIA had chairmanship of, of, of that panel, what was your role as Director General? comme que nag jàmbur kilifa yooyu mu di panel bi gëstu yi nga xam ne lañ doon def ñu ko doon defee eh, ci fa nga xam ne mooy bi NIA te nag eh, yéen mu ngi NIA ñi nga eh, li nga ci xam. Lead Lead Good morning, co the Commission, Honorable Commission. maa ngi nuyu yéen Under normal circumstances. yéen da leen wér yi. I should indeed have been the host. waroon naa ki nga xam dalal panel and administrative head of the panel. panel because the panel was situated inside the premises of the NIA. panel NIA. but uh, as soon as the panel was seated. panel I addressed them and welcomed them. Eh, and left. They were supposed to have what did you say to them, if you can recall? That having come from different units, they were there as one unit and should work not for or at the behest of their different heads of department. te but as a team. and we are supposed to submit daily reports to the director to the their chairman and subsequently to the director general NIA. li tamit bot bu set war nañoo bind nag li àggale ay bataaxel yi nga xam ne loolu la ñu nattee seen gestu ci seen chairman bi ko jiite ak ci ki nga xam ne moo jiite NIA. onward transmission to the then president. ak tamit ñu dal di ko àggale ci ki nga xam ne nii mooy bi jamono boobu. essentially the panel reported to you as DG NIA, who would in turn report to the president. léegi mu mel ni panel bi ñoom ba bu set seen xibaar yi liggéey gëstu yow lañ ko war a eggee buur bu set léegi nag gannaaw bu loolu nag kan moo ko war a egg président ba. Ah, non ah, ba pare yow nga eggee ko président ba. please proceed. yes. waaw. Ah, in essence technically, you are the interface between the president and the panel. man mu mel ni daal ni ñu liggéey bi di doxee mooy ne yow yaa ki nga xam ne yaa nekk président bi ak panel bi. yes Wow. Ah. you told us or you have agreed to the proposition ah, that the work of the panel involved four distinct components. Eh, panel eh, well let me see how to put it in wolof ah, dafa am ñeneenti banxaas ñu nga xam ne ñoom lañ dajale boole leen pour ñu def liggéeyi panel bi. Not I told the lead council, but I was informed by the lead council that there were these sections within the panel, and I agreed. man wax la ñu lead council wax ne lañ ko uh, in fact, I did clarify it that it was a proposition that I made to you, which you accepted. ma tamit la rek dama ko ci sa kanam nga Indeed. You adopted it. You adopted it. indeed. Wow. so it is yours. it is your statement. bon sa la. you had a choice to reject it. you had a choice to modify it. you had a choice to partly agree it and partly reject it. You had a choice to agree it wholesale. And you made your decision to accept it wholesale as true. It is therefore your statement. Do you agree? May I differ a little bit. ndax mun naa wëlbatiku tuuti. When the panel was opened and inaugurated and they started operating. biñ sampee euh, panel boobu ba mu commencé di dox. soon as I left. naaw bu ma demee. I never went back there. mosuma faa delluwaat. I noticed. ndax yëg naa ne. that the functions that I was supposed to have been. carried out ndax liggéey bi nga xam ne waroon naa ko faa def overseeing aspect of it. di war a bàyyi xel li ñuy doxalee. hijacked. dal di woon nañu ko nangu si suma ron. by the then chief of staff. di ki nga xam ne nii chief of staff. Lantombong Tamba. Lantombong Tamba. was permanently in the panel. moom toujours rek mu ngi woon ci biir panel boobu. Uh, you have said quite a lot of interesting things. wax nga fi ay yu ci bari yoo xam ne nag yu am solo la. and I just try to regurgitate off head what you have said. You have said the work I was supposed to do in the panel I did not do. Because after I addressed them the first time I did not go back there because the job I was to do, which was to oversee the work of the panel, was hijacked by the then Chief of Staff, Langton Tamba. ndaxte li nga xam ne moom laa fa waroon a def mooy di bàyyi xel liggéey bi panel bi di def eh, ne na ko loxo di ko def. that is what you said. loolu nga wax. indeed. waaw. there are two important elements that we need to look into in that ci ñaari fànn yoo xam ne nag war nañ ko cee seetlu. the first is. bu bi mooy. whether you have been back there. ndax delluwaatoon nga fa. to see the work of the panel. pour seet liggéey bi panel bi di def. or to coordinate or liaise with members of the panel. wala nga jiite wala jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi. I give you another opportunity. maa laa joxaat beneen bunta. to think to reflect carefully on that. Yes, I went back a second time. And probably a third and a fourth and a fifth time. Don't, uh, don't box yourself in a situation on a point that is not so significant bul tënk sa ci anam amul solo let me put the question differently. Eh, ci anam. in spite of the working arrangements. bi ni nga lañ ko ni you you remained in contact with members of the panel and knew what was going on. yaa nga continuer di jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci panel bi te it xam nga li fa doon dox. As an intelligence officer, I am bound to look into things and find out my own way. ci ni mu ajoo si suma wàlli liggéey kuy jëm si mbiri xerewlu war naa nekk koo xam ne war naa xam di gestu it ni nga xam ne noonu la mooy doxee that, things. But, but that is something else. That is, that is paying attention to things with a view to gather your own intelligence. Uh, but that aside, and that aspect is, is very covered. Uh, but you had an overt and direct and very open relationship with those who were working at the panel, which enabled you to know about everything that was going on in the panel. pour di bàyyi sa xel rek ci ni nga xam ne noonu la ñoo doxalee seen liggéey loolu beneen fànn la waaye ba léegi yow doon nga ko xam ne jamono bu ci nekk yaa ngi doon jokkoo ñoom yaa xam yaa ngi doon li nga xam ne moo dox ci panel boobu noonu. Naturally, I knew personally certain members of the panel. ci nekkin am am na ñenn ñoo xam ne nekk nañ panel boobu xam naa uh, Mr. Sambu, I am not talking about an informal flow of information. I am talking about a formal flow of information that is based on the working arrangements, wherein you are debriefed about what is happening or you rather briefed about what is happening at the panel. You would occasionally go there to see what is going on, and you would have constant flow of communication between yourself and members of the panel. Is that true or that is false? The chairman of the panel would come to my office practically every day to submit daily reports. ki nga xam ne nii moo jiite woon nag panel yi but boobu dana day ñëw si man ngir àggale ma bataaxel yi nga xam but not only would he come to your office to discuss work of the panel, uh, you would occasionally go to the panel to also see what they're doing or to brief them. waaye do daan em rek ci moom mu ñëw sa office waaye yow itamit léeg-léeg daan nga dem fekki panel bi foofu pour seet lan la ñoo liggéey wala pour xamal leen nga xam ne noonu la liggéey bi di doxee. There was an occasion when I had to go and address the panel. amoon na yenn jamono boo xam ne nii dama waroon a dem foofu nag ngir gaaral eh, ci panel bi. because they were not work they were not working in cohesion that's the beginning. four stages of the panel. ci njëlbeen nekkuñu woon di liggéey ni nga xam ne noonu lañu natt ci anami liggéey bi ni mu waree. and I to remind them that they had ak gannaaw loolu nag ci laa dem pour fàttali leen leen liggéey bi dañ ko war a def comme ñu seqoo ko ñu boolantee liggéey. that the reason for their being at the panel was the fact that they were all qualified and reliable people from their departments, and that's what brought them there. li tax ñu seq panel boobu nekk na ni ñoo xam ne nii ñëpp njott nañ ne ñu màcc lañ seen liggéey si seen bànqaasi liggéeykaay yi moo tax ñu dajee foofu. and we are to work in unison. dañ war a liggéey bennoo. was that the time for Fodebari and Baba Saho were brought into the panel? ndax loolu mooy jamono ji nga xamee ne ak Baba indi nañ leen ci panel bi Baba Saho. I'll admit I was not aware of their coming back. danaa nangu ne de woon ñoom bi ñuy ñëw ci panel boobu. was not informed. yëgalu ma ko. but um, you would admit well I would deduce from what you've just said that there were problems in the panel waaye di nga nangu comme ni nga ko waxee ne amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne amoon na ci panel bi. did those problems impede the success of the panel. ndax eh, loolu nga xam ne mooy woon eh, jafe-jafe yooyu indi nasaxal na yokkute bi nga xam ne moo war a am ci njëm kanami panel bi. I might agree with the eh, lead uh, council because uh, officials, members of the panel did not see themselves as a team working together. The, their allegiances and uh, loyalties still lay with their individual bosses. And uh, sometimes, somehow, they briefed or debriefed their bosses and did not get a single, let's say, report that would come to me. And I had to go and correct that. dinaa nangu eh, ci kàddu ci eh, eh, lit kansul boobu ndek ñoom ñi nga xam ne nii ñoo doon liggéey foofu noonu mujjee gi nekku ñoon di liggéey comme ni nga xam ne noonu lañu war a bennoo def liggéey lu aju ci seen kóllëre ak ci seen màcc ak liggéey léegoo léegi dañuy jox ay bataaxel di déey ñoom kilifa yi nga xam ne nii fa lañ jógew si seen i banqaas ni war maa dajale bataaxel àggale ko ci man. Because Eh, ci borom mi eh, ak mbir ci mbir ak man. Uh, in essence you are also a formal conduit of information from the president to the panel. yow yow ci yaay xibaar ko ci président bi ko ñooñu nekk ci panel bi. in essence yes. wow si yenn jamono Wow. but. why? I did not have direct contact with the president. Madam. daan am jokkoo uh, uh, président bi direct. the chief of defence staff who was there had. kii nga xam ne chief of defence staff moom moo am. so before I had the opportunity to go and brief the president he was already in the know. Bala ma daan am bunta boo xam ne dinaa mën a dem nag wax ak président bi àggale ko bataaxel yooyu fekk moom. Uh, pare we would come to that issue because you raised two important elements. One was your contact with the panel, how often you were in contact with them. And the other point is your responsibilities having been hijacked. Those were the words you used uh, by the by the then uh, CDS. dinañ ñëw ci mbir moomu ñu laal ñaari fànn mooy benn bi jokkoo bi nga xam ne yaa ngi koo am ak ñi nekk ci panel bi ak nga lañ li nga sa ci panel bi te eh, ki nga Tamba mu ko ci sa loxo. And I might add a third element which we would discuss would be the issue of control over the work of the panel. dinañ ñëw ci beneen ma yokk ci sax beneen muy ñetta mooy ki nga xam ne moo moo war eh, lépp loo xam ne di dox ci panel bi ci loxoom la war a nekk. So so we would come to that. But for now, let us focus on the issue of contact between you and the panel. ak panel bi. And what precipitated that is your suggestion that after you addressed them the first time, you did not go back there again. Well, now you have changed that to say, well, you have been there, one more time, or you had been there to brief them, to brief them about this uh, lack of cohesion in the work of the panel. But I am suggesting to you that perhaps you have visited the panel more frequently than you have made it, and think about that and give us an answer xam nga da nga wax ne panel bi yow benn yoon rek nga fa demoon bañ commencé bi ubbi ko ca nga fa a dem nga ñëwaat dellu si waat ne léegi-léeg daan nga fa dem li ko waral mooy ñàkk bennoo bi nga xam ne moo nekk seen diggante ñàkk déggoo ci benn kàddu léegi moom laa nga waxal ma naka la demee. Uh, Mr. Sambu, I have just received a copy of your closing remarks. This, this is personal. Uh, we don't want to see it. We don't want to know what it is you're going to say because we don't want the suggestion or the idea that the commission directs witnesses what they have to say or, or would coordinate with the witnesses what it is they're going to say. This is your closing remarks. Feel free to say what you think needs to be said to the Gambian people at, at, at this time. So we have no input in it. I have not seen it. Uh, I have just returned it to you as it was given to me. I just thought we should put that on the record so that it is known. Please. May I reply on this? Yes, yes, go ahead. Yes, uh, the reason for lead counsel receiving this, my copy of the closing remarks was that I left it with somebody to type it for me. Okay. Uh, I was anticipating to receive it before the opening of the session. Okay. Uh, I decided to formalize it and send it over here. mu ne pour mu leeral nag loolu rek mooy li tax lead council eh, jot eh, kayit boobu noonu moo nekkoon ne daf ko fi bàyyi woon pour ñu bindal ko ko ci mbindam machine eh, tey séntu woon ne dana ko jot balaa ñooy toog. Uh, yes, thank you, Mr. Sambu. I just thought that we could clarify this because I mean, everything that is done here is scrutinized or would later be subjected to scrutiny. So, so we just clarify some of these things. Uh, now let's go back to the issue. I hope you have reflected on your answer. Uh, you have visited the panel when it was doing it, its work at least a few times, to say the least waa léegi ñu eggali foofu naa feeñee ci sa tontu yi ne panel bi dem nga fa ay yooni yooni yoon yoonu benn yoon pour seet ñoom ni nga xam ne la sa liggéey seen liggéey bi di doxee. Naturally, lead counsel as head of the NIA and chairman, supposed to be administrative head of the panel, it was my duty to make sure that everything went well. In the mornings, ci maqaama yi nga xam ne nii moom la rango di ki nga xam ne nii mooy borom kër buntu liggéeykaay boobu te war a nekk chairman bi e, nga xam ne nii e, mooy chairman yi kuréel yi gestukat yooyu noonu e, war naa saay bu nekk xam li nga xam ne nii mooy doxalin boobu. in the mornings when I suba yi léegoo léegi naa de dem. greet them. gis leen. ask if everything was okay. seet ndax yëpp mu ngi dox ni mu war a doxe from the administrative point of view. Eh, comme ni nga xam ne ni dëppoo naag lu aju si wàlli jiiti doxalin boobu. papers pens tea coffee and all that stuff. kayit ak bindeekaay yeeg ak si ñooy naan ak yëpp. and I would leave. bu ko defee nag ma dem. of course so it was incorrect when you said after the first day you've never gone back there. The fact of the matter is you would visit occasionally to see how things were going. kon dugoon dégg boo waxee ne yow bañ ko ubbe rek ba nga garal fa sa ay kàddu ci nga fa gej diga bi dal moy legge leg di fay faral di dem sa yu nek pour set bi ni mo doxé Yes, what I meant, uh, it must have been a slip of the tongue. What I meant was I did not go there and I never interfered in their job. waaw muna na amal rek njumtel gi meñ rek ndem lima don doon wax rek mo nek ne dem mo won fa pour di set wala di dugal suma loxo ci ni nga xamé non lañ daan ah, May I comment? And here comes your question or your issue of control of the panel. léegi nag ñëw nañ ci sa laajte bi nga xam ni wala fan bi nga xam ni yaa ngi ko jëmale lu jëm ci wàlli teg loxo lu aju ci wàlli kuréeli gestu boobu. panel was not under my control. panel bobu de nekkutoon ci suma ron loxo. it was more under the control of the then chief of defence staff. Tamba dafa gënoon a nekk nag ci loxo ki nga xam ne moo chief of defence staff. and practically the chairman Mr Haidara. Ah, the two things are different. Um, de facto leadership of the panel. the jury leadership of the panel. These two are different. Okay. Uh, we are told that the formal chairman of the panel was Haidara. Effectively, therefore, he was the de jure leader of the panel, who was the de facto leader of the panel. And what I mean is who was the leader in actual fact, in practice, who was the leader of that panel. Uh, mooy làppatoo ko ci dafa gudda. ñaa dafa gudda <laughs> <laughs> ñaari ñaari mbir a ci nekk mooy ki nga xam ne moom lañ dénka euh, njiiti panel gi ak ki nga xam ne moom moo jël njiiti panel bi jiital ko boppam ñaar yooyu dañ ute kañ ko dénka ak ka ko yore ka ko yore moo doon Lang Tombong Tamba you want control it waxaat ko and I will Yes, tell us in English. I have said it that the de facto, as lead counsel suggested, was the, the then chief of defense staff, Langtombong Tamba. Why do you say that? We know, we know that the jury was Haidara, uh, Haidara because he was formally designated. Ah, ma wax ko ci wolof xam nañ ne kañ dénkoon njiitaayi Haidara lan moo tax nga ne lang tombong mooy woon njiit li moo ko ci olof lang tombong moo amoon direct contact ak président lang tombong was the one direct contact with the president lang tombong moo nekkoon foofu ci jamono bu nekka lang tombong was always present there lii jógee ci panel bi di dem State House ak lii jógee State House di ñëw ci panel bi ci ci moom la daan jaar all information that is from the panel to the state state house and from the State House to the panel passes through him. Could you say? I never knew anything. I never knew anything of it. Here again, I will clarify something. During a lot of testimonies, witnesses will say the NIA, the NIA, the NIA. The NIA took prisoners from Mile 2 came, brought them to NIA and took them back in plain clothes. NIA yi dañ dee jëlee ay way denc ci kaso gu mag yi yóbbu leen NIA dolli leen delloo jiwaat te ñu sol uniforme. members of the state guards were also in plain clothes. ñenn ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey nag state house di ay garde kat ñoom it duñ daan sol uniforme. they were also in the panel. te eh, dañ daan nekk ci panel bi. Uh, premises where the panel was situated in was at, in the NIA. kuréel googu nag NIA. of which I was head. nga ni ko my opinion about bringing the panel to the NIA or setting up the, pan the panel was not sought. Eh, eh, indi panel ni the then president decided to do things on his own fi nekkoon président dafa dogaloon pour mbir ci li nga xam ne moo wér rek. and use his liaison who was the chief of defence staff then. daal jëfoo ki nga xam ne ni moo nekkoon ki jiite woon yi jamono boobu. to do things. pour ñu def niñ ko buggee. I was just there like a figurehead. man kañ dama fa nekkoon rek ci ab tur. that is why my name obviously will naturally surface. bu ko defee nag loolu mooy tax suma tur saay bu nekk rek danañ ko and I will be adversely named. te eh, danañ ma di bugg di tudd saay bu wish to put this on the record. thank you jërëjëf. Uh, what you said is obviously very clear. but it has to be subjected to a little more interrogation. Uh, and the reason for this is the Commission is only interested in the truth with a view to be able to determine uh, you know, what actually happened. li ko waral nag mooy commission bi moom li leen itteel rek mooy dégg gi ndax ñu mun a xam sa li nga xam ne moo fa doon dox. From what you have said. yow comme nga wax. It appears to me that there were two lines of communication between the president and the panel. dafa mel ni ci man daal dafa mel ni ñaari fànni jokkoo moo doon dox ci diggante président bi ak ci panel bi. Yes, indeed. Well, One line of communication was between the president and yourself. benn fànni jokkoo bi mooy woon diggante président bi ak yow mii ci sa boppa then to the panel. jëbëru eggee ko panel bi. and the second line. beneen fànn bi nag. the president to tombong. président bi eggee ko tombong. and the panel. ak panel bi. is this true. it is true. I oh, no, had, no. I had a moral or whatever legal, official, administrative duty to be reporting to the president, uh, to brief him, and um, I did that. amoon naa cër boo xam ni nag waroon naa doon warugal pour may jël ay bataaxel diko ko président bi eh, ci panel bo te def naa ko. But the issue is by the time I got my reports, daily reports, typed them, looked into them, edited them, or analyzed them to take to the president. I was already giving him stale news. bu koy fee nag eh, léegoo léegi nag saay bu ma jotee bataaxel yooyu noonu ci jamono bi nga xam def bindam tubaab eh, ci machine bi dal di ko seggaat dal di ko seetaat président bi su àggee rek dafay fekk tardé na. that rendered my effectiveness and effective efficiency useless. loolu nag bu boobaa dafay nasaxloo li nga xam ne ni moo suma warugal ci mbiri panel boobu ci wàlli yóbbu yóbbuum bataaxel how would the president receive the information in advance of your report? Nakala président bi di jotee balang sa xibaar di ega ci through the second line of information that lead counsel just mentioned. comme eh, ni nga xam ne rek noonu la ko lead counsel feeñalee. Uh, I did not say it. Yes, you, you suggested. Uh, no, I, I just dissected what you said. Well, I agree and, and, and brought out that element because you said it maa ko wax de man dama tànnaat rek yow ci li nga xam ne moom nga wax ma ci euh, jukki loolu wax ko waaye yow yaa ko wax. I'm not the one testifying. You the one testifying. man nekkul ne maa fi toog da di joxe suma ay seede yow mii la. so you suggested that. the president was communicating with the CDS. And uh, he was getting information from him. Isn't that what you said? Very rightly so. Nonla. So Very it, rightly so. So it is not lead counsel who is suggesting to you that uh, that uh, Lang Tombong was a direct, had a direct line of communication with the president. So let us start with lead counsel bi man maa ki nga xam ne maa la doon xalal ne eh, Lang Tombong dafa amoon Joko direct moom mo président bi ñu leeral foofu. May I suggest that lead counsel was just corroborating what I said xanaa eh, mun naa leeral rek ne lead council Don't gën a fiddali rek ci no I withdraw my statement. yes you are wrong. fekkee dama juum nag ma with all due respect. lead council was just recasting what you said. so that you can also adopt it again. we agree. okay so so now with these two lines of communication you are saying you are often beaten to the president mel ni ñaari fànni yi nga lañ fi wax ci gannaaw bon suñ ci la mel ni yow dañ la ci président bi. yes. Wow. and he was not the only one. te duutoon moom rek de. and who else. Akan. I have heard. Akanati. Akanati. I have heard Alaji Martin here. te danaa dégg naa fii ci Alaji Martin ne. that he was in the panel at times. moom ngi daan nekk ci panel bi léegoo léegi. as an observer. koo xam ne nii dañ ko fa yóbbu rek pour muy bàyyi xel. and he would report to the president at dana ko àggee bataaxel bi di président bi. same thing happened. loolu rek moo xewati. with the then and late uh, captain Tumbul tàmba ki nga xam ne nii ndem si yàlla Tumbul tàmba ak Maliam o oh, Maliam Mungu uh, Musa Musa Musa Jammeh. wala Musa jàmme Maliam Mungu. They had their personal telephones with them. dañ daan amee seen téléphone yi bopp. and from the panel they would go step out and call the president. te buñ génnee si panel bi rek ñu jël di jël téléphone téléphone président bi. or the president would call them. wala président bi sax call leen. and they would give him feedback. buubaa nag danañ ko nettali li nga xam ne nii fa daan dox. By the time I wake up in the morning to come to work, news had already settled in State House. balaa maa xëy bay eew di ñëw liggéey dafay fekk sax bataaxel yooyu àgg nañ State House. Euh, that is the evidence that, that, uh, that we have received from witnesses. Loolu uh, Those were the State House representatives in the panel. Okay, but what I am driving at. It's not so much the flow of information back to Yaya Jammeh nekkul torop ni nga xam ne noonu la day jotee di delluwaat ci yaaya jàmme it is about your knowledge of what was happening at the panel. li wax mooy yow sa mbiri xam-xam ci nga xam ne loolu moo doon dox ci panel bi. you knew what was going on in the panel. xamoon nga li doon dox ci panel bi. there were represent other representatives of the NIA in the panel. am na ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi fa toogaloon NIA ci panel boobu. who. Some two boys were there. I wouldn't remember. am na ñaari boy yoo xam ne ñu ngi ko fàttaliwuma seen tur. surname was Tambajang. kenn ki nag turam mooy Tambajang. santam. and the other one was Yusufa Faye. keneen ki nag moom mu ngi tudd Yusufa Faye. and these people would report to you. ñooñu ñoom ñooy ñoo jox la xibaar yow. yes and. Uh, waaw. da uh, I I I I would call them. léegoo léegi ma oo laaj leen. to verify or confirm what I got from the chairman Mr. Hydera wala man chairman bi Mr Haidara. Ah, in view of all that would you accept that you are inextricably linked with the work of the panel. Eh, ci kaw loolu yëpp nag ndax mun nañoo nangu ne yow amoon nga jokkoo bu dëgër boo xam ne mu ngi woon sa diggante ak panel bi. not always. not nekkul waxtu wu nekk rek. on the basis of need ci jamono boo xam ne daal nañu ko. when I had my doubts. bu fekkee ne amna naa ay jaax-jaaxle. yes I would call on the boys. danaa leen oo ñoom booy yooyu. and they would tell me. danañ ma wax. or. wala. when the feedback varied. bu fekkee ne li nga xam ne loolu laa jot am ay utale. from that of the chairman. ci li nga xam ne moo jógee ci chairman bi. what I got from outside. ak li nga xam ne moom laa jot si biti. or from the boys. wala si boys yi point I was making is you are linked inextricably. ne yow bu am nga ko ak you were the administrative head. or the administrative supervisor of the panel. I think those were the words you used in yes, your statement. Yes, yes. Well. So, so, so, so therefore, oh, you also shared ownership over the work of the panel. bon mel ne yow tamit bokk nga ci li nga xam ne moo di moomee fii lépp loo xam ne xew ci panel bi. administratively yes. Wow, ci li nga xam ne mu ngi aju ci wàllu dogali liggéey bi waaw. we would come back to that. dinañ jël si ci loolu. tell us about the decision making in the panel. wax ñu li nga xam ne ñoo amee baati dogal bi foofu ci panel bi. I think it was Langtombong and Haidara. yaakaar naa loolu mu ngi nekkoon ci diggante Langtombong ak Haidara. dara do you say lu tax nga wax loolu. Hmm, they were the senior officers. parce que ñoom ñoo fa gënoon a nekk ay kilifa. we have agreed that uh, even though Haidara was junior to Lang Tombong in terms of rank in the, in the security services, Haidara was chairman. Why so formally speaking, rank or position appeared not to have mattered. Why? Nang nang nañ ne dëgg Haidara ci wàlli maxaama moo Lang Tombong waaye nag terewutoon ne moom mooy ki nga xam ne moo jiite woon li nga xam ne mooy doxin bi fa doon dox wala sax mun ñoo wax ne maxaama bi ñu ngi koy wante daa amul solo foofu. May I please remind lead counsel that I did mën naa fàttali lead counsel ne man nekkuma woon ki nga xam ne maa tànnoon eh, Haidara def ko mu jiite kuréeli gestu boobu. and that point to me is irrelevant eh, kon nag man kàddu yi daal nekkul lu am solo ci suma wax ji. You may have missed the point. What I oh, was okay. trying to allude at is uh, that uh, the fact that they were the two most senior people in the panel, in fact, is not reason why uh, why they had control. Uh, I mean, there, there may be other reasons why they had control. ñalima wax ñi nga xam ne ñoom la seen a kowe ci ñi teew ci panel eh, foofu rek waaye eh, li ma li jéem a wax fii mooy ne yow danga ne ñoom ñaar ñoo amee woon kàddu gi ci panel bi parce que ñoom ñaar la seen maxaama gën a kowe ma nit ma woon la ne Xaydara Langtombong maa xaamam moo gën a kawe waaye taxut jëluñ Langtombong jox ko njiit li ñu ngi jël njiit li jox ko Xaydara bon mu ngi mel ni maa xaama euh, taxut ñoom ñu am kàddu am na leneen luy tax ñoom ñu am kàddu gi ci ci panel bi yow si sa gis-gis loolan la loolu nag nga baalal ma duma ci mën a xam dara parce que nekkuma woon foofu ak ñoom that not I may not know much about that because I was not there Lang if you see Lang Tombong was there. am interest ko maybe there was another interest. but he he could have been somewhere with responsibilities. That's why Hydra should be there as chairman. How much is that? I you don't have know told us that your responsibilities were hijacked and the word hijacked was your suggestion. These were your own words. Yes. You said they were hijacked by Langtombong. Can you tell the commission how that happened? I don't know. He must have had his own agenda or he must have had his own interest like you are asking now amat dafa ina rek wala ni soxal ci. or maybe he must have been appointed to sit there. wala sax xëy ñu tànn ko pour mu dem fa da man xaw ma. ma ko la ko if I should know I would have tell you. but what functions of yours did he hijack from you. ci sa bi nga nga rek ci ban la jël ko if he were not he, he did not permanently post himself there or he were not permanently posted there to be overseeing every day practically the commission interfering in their work, the, the, the panel in, to be interfering in their work. I think I would have been free enough to control the panel and know what, give them the, the sense of direction in my own way as an administrator and maybe a security head to run the planet. bu fekkee ne yóbbuwutoon boppam su fekkee ne foo yóbbuwutoon boppam foofu wala ebaluñoon ko foofu noonu mu nekk fa toujours danaa doon nekk koo xam ne nii danaa doon am suma sago boo xam ne nii mayit danaa doon doxal li nga xam ne man e nga xam ne nii mooy doxal nag li nga xam ne nii wala di bàyyi xel lu jëm ci wàlli tëddee li ni kuréel googu di doon gestu. Uh, you use the word kàddu boo xam ne nga ne dañ ko foxal ñi sa loxo. Might it be the case that you ceded your responsibilities to him? If he had asked me to cede my responsibilities, I would have done so. bu fekkoon ne laajoon na ma nag pour man ma ko suma eh, warugal foofu danaa ko ko doon jox. didn't ask me to cede he took them. na laajut ma ko daf ko ni. this is why did you have a conversation with him about this? No. Am nga ben waxtan wo sekh ak mom lu aju ci mbir mom? Edit. No. You acquiesced? Come again. You acquiesced? Nangu nga ko. You eh. resigned to to to the situation. Yow ya nak jébal eh, na ci mbir mi. Lead Council, if you remember our tete-a-tete. Lead Council, boo fàttale ko suñ jàkkaarloo. We were talking about the panel. ñuy wax lu jëm ci mbiri panel boobu. I told you that I withdrew or in Wolof ma beddeeku. dama la ko waxoon ci Wolof ne dama beddeeku. if that means resigning. ndax loolu moo miin ne dama jébbale liggéey bi. let it be so. nan na ko kon. the situation during that time. jamono boobu ci waxtu woowu have written it in my statement. that it was like an undeclared state of emergency in the country. everything was directed towards that aborted coup. lépp nag ñu ko jëmale rek ci everybody was a suspect. kenn ku nekk rek nañ la ci. including my good self.

Eh, is why I folded my arms. and kept indoors in my office. and would only see Haidara at the end of the day. but my constant uh, I mean my my my touch as lead counsel would say with the panel. Eh, li eh, panel bi. was to know what was happening so that I'll be on the right path. bu baax pour ma xam nag li nga xam ne nii fay dox bu baax ndax dana mën a fekk may ma mën a ci li nga xam ne lañ seen ci man. and also be very careful. nga xam ne danaa gën bàyyi xel. this is the issue. Li moo doon lii xew. and indeed you knew what was going on in the panel. te dëgg la nag yow nga li doon dox ci panel bi. I was bound to know. dama waron ko xam. and uh, tell us what you knew was the system, the modus operandi of working. We have had several witnesses on this issue. How was evidence collected? I said in the beginning that the panel started off nicely panel bi ni mu commencé woon de doorante bu yéwén la woon. especially when they were walking during the day. rawatina nag jamono bi nga xam ñu ngi doon liggéey ci bés bi. but then things took a drastic turn. mu jéggi daal mbir mi dal di am wécceeku wécceeku boo xam ne ni bu jafe bu doy waar la. let's interrogate that first part of your statement. the panel starting very nicely. when especially when they were walking in the day. This panel started off very badly and in fact started working at night and not during the day. léegi nañ wax nga xam ne moom nga wax ne euh, bi commencé mu ngi doon dox ci anam yu rafet yoo xam ne noonu lañ doon seeni liggéey euh, ci bés bi buñ ko commencé waaye nag panel bi léegi daf dee nekk jamono joo xam ne ay guddi la ñoo liggéey du doon déedéet euh, panel bi sax day seen liggéey ci anam bu rafet anam bu ñaaw lañ ko tàmbalee ba pare it tàmbalee wuñ seen liggéey ci liggéey ci bés bi ci guddi gi lañ doon def seen liggéey li ci ëpp loo wax ci loolu noonu lañ ma ko yëgalee That's how I was informed. Uh, That's how I used to be eh, informed. Find out. Uh, might it be that is the way you choose to characterize it now? But the reality is, okay, let's do it this way first day bés bu njëkk bi Bunja Dabo was arrested Bunja Dabo ci lañ ko jàppa correct noonu la I wouldn't remember ak mënuma fàttaleku mënuma koo fàttaleku Bunja Dabo was one of the first to be arrested Bunja Dabo moom lañ njëkkaa jàppa man impression biñ ma jox the impression that was ñu ngi fine we, they were working fine and the eh, suspects yaa ngi cooperate and the suspects were cooperating when i found out ma yëgee nag ne that they started beating them ñu ngi commencé di leen dóor i went to the head of state ci laa dem ci borom réew mi and i told him ma wax ko ko uh, let's take things chronologically, step by step. Ah, you have said that in your statement. And uh, you have I think it's paragraph 17 of your statement. You have said something interesting, and we would come to that. That is actually the, mod, the modus operandi and who was responsible for what. But it behoves us to correct the record. The starting itself, which you said was they were working nicely ci ndortewel li nga wax ne ñu ngi doon liggéey ci anam yu rafet is contrary to the evidence we received dafa uute nag ak seede yi nga xam ne moom lañ fi jot and that they were walking they started when they started off they were walking in the day is contrary to the evidence we received li nga wax tam ne bañ commencé dañ doon liggéey bëccëg dafa uute ak li nga xam ne moom lañ fi jot in fact the evidence we received ndaxam sax xibaar yi ñu fi jot was that the witnesses once apprehended are taken to mile two prison straight away mooy ne buñ leen jàppee rek dañ leen a yóbbu jubal leen yóbbu leen Mile Prison. and later at night around 2 a.m. they are taken to the panel. bu ko defee buñ xaaree ba ñaari waxtu ci guddi nag ci lañ leen di jël yóbbu leen ci kanam panel bi. that was the system. noonu la doon doxee. the witnesses would go before the panel during the day. dinañ dem ci kanam panel yi ci bi. after they have gone through a whole lot of sessions either with torturers or investigators is that true that is why I said that is the impression I was given loolu mooy let's not talk about impressions now let's talk about the real fact lead counsel if you would please allow me. I also have something to say. Of course, you would. You would have every time to say what you have to say. Believe the impression I was given was this. It is possible that it's contrary. Because the facts and the statements are there. The testimonies are there. Nobody can argue against that. ken mënu a werante lolu I ask for feedback somebody reports to me. dama dan laccé pour ñu jox ma ay bata xel ñu ma koy jox was very nice. bata xel biñ ma jox na mo nek ne mu ngi nekkoon ci anam gu wir when I found out the facts. bima ma nak li nga xamné moy dëgg ji. I went down the ground. ma dal di dem ci bir ci fofu and I took up the issue. ma dal di jël nak fanna bobu and felt very foolish. be pare nak mu nek lo xam lu doya di la ci man. I have said it here, and that's why lead council said I have said something very interesting, and we will come to that. lead ne solo uh, let us not go ahead of ourselves and take it step by step. buñ buñ par the impressions you said you were given were not true. du woon dëgg. correct. accepted Well, Nanguna. and the truth. of what was happening. ni was that a lot of these witnesses or these suspects were taken before the panel late at night. mooy ne panel but why? I have also said in my statement and I'll say it here. wax naa I left to go home every day half past seven quarter to eight. léegoo I will not leave my house until I come back to work in the morning. wax what took place there during the night I did not know until I am informed in the morning and I hold my head. bu ko defee go waxoon I ko fii tamit ne man saay bu nekk juróom-ñaari waxtu yi ci jëm juróom-ñetti waxtu yi si ngoon ci laa di ñibbi su ma demee du ma génnaat suma kër ba ci ëllëg si suba si su may xëy liggéey si kanaa su ma ñëwee ci lañ may nettali li xew bu boobaa nag ma téyal di téye suma bopp that was not part of my loolu nag nekkutoon li nga xam ne nii suma yareef ci liggéey la it was not part of my li nga xam ne nii moom lañ ma tàggate and I did not receive that type of training either at school at home or from the university duut nag loo xam ne nii la ci man boo xam ne jotee ci kër ga wala ci school wala sax ci université bi. against my principles. ndax loolu utee na nag ak li nga xam ne nii suma yareef yi xol. what was so abhorrent. and well beyond my control. what was so abhorrent that it was contrary to your principles beyond your control which caused you to hold your head every time such information. lan ci nga eh, biñ la li nga fa dox da nga sa bi lan li nga ci ci li dox. the tortures and the beatings of the detainees. yi nga lañ we have heard from Alaji Martin. déggee nañ ci Alaji Martin. corroborated by several witnesses. te wéral na fi di ay yu ci bari that the panel had a working method. Panel am That if a person is taken before the panel. panel And the person is not singing like this tune that they want him to sing. They will call in the junglers. And the junglers would take the person outside. borom They will brutalize the person. mugal And would bring the person before the panel at another time. Dal di ko indi waat panel. And the person is subjected to another round of questioning. Su that happens until they have a confession. borom nangu li I heard Elijah Martin. Degna Elijah Martin. Was he lying or was he truthful? He was not lying. He was not lying. They could not, defend it. So what was he saying? He was saying the truth. You don't what the They had orders from their boss. dañ dee am digal bo xam ne mu ngi boss. ci seen boss. the detainees to say the so called truth forcé jàpp ñu wax nga loolu lañ dégg could you take that again. mën nga jël. they had orders from their boss. am lu ko ci seen boss. from State House. State House. to make the detainees say the truth, the so-called truth. ñu wax ñi nga xam ni ñoom lañ jàpp ñu wax dëgg ji ñoom lañ bëgg dégg ne the truth according to who according to them according to their boss. in a sense uh, you you have told us. these confessions were coerced or extorted out of these witnesses. I have. dañ ko daan forcer pour ko ci ñi nga I have. ko fi. and uh, these confessions were the basis of the prosecution of these witnesses, of these suspects. te ci nga la joxe ci la ñoo pour yóbbu ci kanami so I was made to understand. mujj gi nag lañ ma yëgal. But, but you would have been the person to submit the reports. waaye yow yaay a bind xibaar I would ask a rhetorical question. I am not supposed Just to just answer questions. the questions instead of asking me questions. I ask the questions, Mr. Sambu. Yes, that's what I said. I will ask a rhetorical question. Just answer the questions. was there any... I did not have a choice. amoo woon dara loo xam ne ni ci loola laa waroon a la ngam. to take a daily report waroon naa nekk koo xam ne ni bët bu set ma jël bataaxel yàggale ko ci président bi. Mr Sambu you you have training jàngal nañ la ci ni nga xam ne noonu liggéey bi war a doxee. you had all jangal nañ la ñanga mo xamne yeb mu nga ci sukkandiku pour doxal hmm. sa liggey ni nga xamne non la wara doxé doxee. dëgg la. la. Did you state anywhere in your reports that these confessions that I am sending to you were obtained by way of torture, they were fraud, they were fraudulent, they were extorted out of these witnesses. Did you say that in any of your reports? ndax report yooyu nga doon binda am na ci benn jamono yoo xam binda nga fa ne man day xibaar gi ma laa jottali dañ ko jëlee ci seeni borom ci ay anam yoo xam ne dañ leen ko forcer eh, ci xatal leen ba nga xam joxe nañ xibaar I told the president that the, the, the, the detainees were tortured. wax naa président bi ne détenus yi ñi ñu jàpp dañ leen di to make their reports I did tell him. dañ leen di métital pour ñu mun a euh, wax li nga xam no. and he giggled. and he giggled. wewe mu ree. and then said what. dal di ci teg lan. in fact lead counsel I was made to understand that whilst these prisoners or these detainees were being tortured man nag xam yëg naa ne jamono bi nga xam ñu ngi dal métital ñi ñu jàpp ni. somebody invariably would be there with his telephone. léegoo léegi am na koo xam ne dafa amee foofu ci foofu. and the president would be hearing how the person is shouting or crying. dal téléphone bu ko defee président bi di dégg boromam naka la moo yuuxoo. which means by morning when the report goes to him he already knows. What else can I tell him? Uh, we are talking about a completely different question. Your report, the report that you compiled and submitted, included confessions by these suspects that you know were fraudulently obtained. ci di kàddu yi nga ñu ko ci te yow na la ne anam yi ñu ko jaaru ci yoon. true or false. dëgg la wala déet. you respond now. I said true. man dëgg la. and these reports were the basis of the prosecutions of these suspects. te xibaar yooyu ci la ñoo sukkandiku pour yóbbu nga xam ne eh, ñoom lañ war a yóbbu ci kanami I'm sorry, when they were being prosecuted, I was already not there. The ma doesn't even make it any better I didn't know didn't make it any better ndax uh, the system was you submit reports to the Attorney General's chambers, which would form the basis of a legal opinion, and charges are drawn, and uh, the person is arranged before court. You knew the drill. you work in both institutions. xibaar yooyu nga xam ne moom ngaa joxe ci la ñoo sukkandiku jël ko yóbbu ko ci kanam ci la ñoo atte borom yow xam nga mbir yi naka laa doxee. those were orders from the Jammeh. loolu ay ndigal yoo xam ne jóge dañ leen daan bind. but of course you submitted reports. I did. waaye di ngay joxe ay xibaar. And those reports were the basis of the prosecutions. te report boobu ci la ñoo sukkandeku nag pour yóbbu leen ci kanami loi attekaay bi. True or false? dëgg la wala déet. dëgg la. And it was because of these reports that some of these people were sentenced to death. ngir report boobu sax sukkandeku ci report boobu loolu tax ba ñenn ci ñoom sax dañ leen tëj pour rey leen. Of 20 something years in prison. wala ñu tëj leen ci kaso bi ñaar fukki at ak dara. I am saying that. maa ngi wax ne. When they were being prosecuted, have been len don até, all these files prepared, I was not there. Wala bi ñoo You were not there physically, but uh, but you were you were there in the sense that you submitted the reports that were the basis of these prosecutions. lead counsel. lead counsel circumstances under which we worked. But, but we will come time. to circumstances yes. later. Let's first establish the facts, and then we will go to circumstances the facts, later. The we, cannot, we cannot front load circumstances, then come to the facts. Let's first establish the facts. The reports that were the subject, that were the basis for the prosecution, were the reports that you submitted report yi nga ci sukkandiku pour leen ci bi yow report yow yaay ki nga yow ko joxe. true or false? It was my duty to submit reports and I did. Suma liggéey la woon pour ma agale report yooyu te def naa But Mr. Sambo, you talked about ethics. Don't you think it was your legal duty to provide correct and lawful reports? fi eh, yoon yi nga xam ne ci lañ war a jaar sukkandiku ci wàlli doxal liggéey ci ni war a doxee ndax ne sa waru gal nga pour nga joxe report boo xam ne bu la eh, nga feeñal ko ni nga xam ne moom la santaane and then be sent to mile two along with them bu boobaa nag ñu ma yóbbu mile two ak ñoom you preferred yourself to them dafa mel ni yow sa bopp moo la gënal ñoom I had a job to do am naa liggéey bu may def

I mean, it looks to me from what you have said. Let me just break it down first. You knew that these confessions were illegally obtained. amoon amoon nga ne kàddu àndul circumstances yes. Wow, you knew that these reports, these confessions were going to form the basis for the prosecution of, of the suspects. xamoon nga report boobu nga xam ne moom nga joxe ci la ñoo sukkandiku pour mun a àtte ñooñu nga xam ne ñoom yóbbu ci kanam àttekaay bi. that subsequent step I wouldn't have known because my job was to give intelligence report and I gave da ni fa la ndax liggéey pour eh, bind ko joxe te def. Mr. Sambu, these were not intelligence reports. These were these were investigative reports. Ah, these were investigative reports with the aim of them being used to produce legal consequences. Ah, Mr. Sambo, lii xibaar la boo xam ne eh, ci ay gëstu lañ ko ci la faxe ko bu jël ko jëfoo ko nag ci anam yoo xam dañ koo sukkandiku ci jamono ji leen yóbbu ci àtteekaay bi. that that was the case isn't it. noonu la demee woon ndax déet. that was the case yes. waaw noonu la demee woon. and therefore you knew that uh, those reports you were submitting would be the basis of prosecution. te xamoon nga itamit report boobu nga xam ne moom nga doon joxe ci la sukkandiku pour yóbbu leen ci àttekaay bi. and you cannot claim ignorance because you have been trained in the law, you have worked in Ministry of Justice, you have worked in NIA, you were a seasoned civil servant at the highest levels, you knew the system, you knew how these things would be used. te wax ne dang ci xamul dara de yow xam nga ci loi nga ci nga NIA nga ci nga nguur gi bon mbir yi xam nga ne ni la I wouldn't know how Yaya Jammeh would want to use them because he was a Machiavellian. Because duma don xam naka la ko eh, warona wanted was his report and I submitted them. Lim bëggon moy mu agalé report am té jot report am té agalé na koko. Let's break that. Let's break it down. He wanted incriminatory reports and not objective reports. da nga uh, report bo hamne ne dafay duggal seeni borom waaye nekkul report bo hamne ne dafa jaar ci yoon. true or false. dëgg la wala déet. wanted incriminatory reports yes. waaw dama bëggoon li bataaxel boo xam ne daf leen dugal. and he put in place arrangements. to secure those incriminatory reports. daal dina def nag ay tëralin yoo xam ne ci laa mun a jaar pour jot ci report yooyu nga xam dafa dugal seeni borom. True or false? only he knew what he wanted. dëgg la moom moom rek moo xamoon li only he knew what he wanted. are you reversing are you reversing your earlier response that he wanted incriminatory reports? no I'm not. good so why do you think he brought in the junglers? But let me just take that back. Uh, uh, let me read out from your statement something that you said, and that would help me to ask the next questions. ci kàddu yi nga nga bind na ma dimbale ma ci pour ma ah. you said the prerogative of arrest and detention rested on the then head of state, Yaya Jami, and executed by his henchmen, the state guards led by the late Musa Jame and Tumbul Tamba and their men in the dead of night, who for reasons best known to them brought their detainees or suspects to the premises of the NIA agency. Uh, it's long. Let me interpret this in Wolof, and then perhaps maybe we would go for the lunch break and, and come back. But yeah. Coffee, coffee break. break. Coffee break. I, am a falling. you see. I'm <laughs> going too far ahead <laughs> of you. <laughs> Mr. Sabu is making me work too hard, so I'm feeling, feeling it already. Um, what that meant was, uh, chobaregi, pur japanit, denchako, uh, yaya jamme moko ame won mo mi won jitu ak nitam ñi nga Ah, moom la jëloon pour ñuy koo defal li nga xam ne moom la bugga mooy ñi nga xam ne ñu l ku leen jiite woon di capitaine moussa diami ak tumbul tamba ak seen nit ñi nga xam ne dañoo dem jëli nit ñi ci diggi guddi ah ci ah, regins bes noonu tudem ah, ci ay xalaat yoo xam ne ñoom ñoo ko xam jël leen indi leen ci nia bi i would learn about them upon coming to work in the morning Uh, when the head of the security guards, James Mendy, would inform me. suma liggéey see nag ci suba ci laay doog a xam nag seeni mbir jamono joo xamee ne nag eh, ki jiite wàlli gi James moom koo yëgal. And earlier on, uh, you did say. ci gannaaw wax nga ne that persons were brought to the panel at the NIA by members of State Guard stationed at State House under orders of President Jammeh. ne ñi nga xam ne ñoom la indi foofu ci kaneen panel bi ñi leen dee indi ay gardekat lañ yoo xam ne ñu ngi liggéey euh, State House ci ron ndigali président Jammeh. The late captains Musa Jammeh alias Malia Mungu and Tumbul Tamba and their men brought them in si eh, yàlla si Mungu ak si yàlla Tumbul Tamba ak seeni nit ñoom leen indi ci biir. They had direct contact with the then president. ñoom nag ñoo ak président bi dara seen diggante. which I hadn't. te loolu xam naa ko. I was later to learn. gannaaw gi nag ci laa yëg ne. Some of the detainees or suspects were tortured or beaten during their interrogation. All this happened during the dead of night in my absence without my knowledge that is what you said in the statement so what I am suggesting to you and adopt it to be yours that by the time you put together these reports and submitted it you had full knowledge that these reports were unlawful xam nga ne xibaar googu muy report boobu nga dajale noonu. these confessions were unlawfully obtained. kàddu yi ngeen jëlee ci seeni borom da ngeen ko jël ci anam yoo xam ne àndut ak luwa. in fact in your own words they were extorted out of the witness. they were coerced out of the witness. those were your words. true. true. dëgg la so my question is, when you submitted those reports, you knew that these reports were going to be the basis of prosecution. I wouldn't want to argue with lead counsel on that. But I wouldn't want also to prevent, to preempt uh, Jame's mind and intention. Why not do nekk koo xam ne so what he wanted to do. Uh, Mr. Sam, so I will agree. Proceed, please. I will agree with lead counsel. danaa want to make this counsel. point clear. Mm-hmm. dama bugg Well, you have said, you used the word Yaya Jame was Machiavellian. Yes. We would come to that. <laughs> we would come to that. Uh, but there was a procedure of how to deal with crimes in this country. Yes. And the procedure is when a crime is committed, the person would be investigated and arrested. ni moo war a doxee mooy bu fekkee ne nit ki def na jëf joo xam ne àndut ak dinañ war a def ay gëstu ci mbiram ba pare jàpp ko. correct. loolu la. And if it is found that the person has committed an offense, especially an offense as high as treason. te ne borom gis nañ ne lum def surtout bu dem na ba ci réew. the person would be charged before court. borom dinañ ko yóbbu atte ko ci bi. that was the system. la doon that was the system. So there was every presumption that the same thing would happen to these people. Seeing that an investigation was commenced and an arrest was carried out. Do, do you agree? I do. So it wow. was foreseeable quite clearly these people will be prosecuted true or false And that the basis for that prosecution would be those reports that you prepared. true or false. true and you know or oh, you knew at the time that the reports contained false information. xamoon nga tamit report bo li nga xam ne moom la ëmb yëpp ay xibaar la yoo xam doonu dëgg. yes Wow. break break time. thank you Mr. Chair. thank you council in the receipt <laughs> of those reports Amatou Jammeh he described him as being Machiavellian. The Italian Niccolo Machiavelli must be laughing in his grave. Uh, we'll take a 30-minute break and uh, come back at 12.15. Meeting is adjourned. Thank you.